dale nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo Ousmane Sonko njiitul Pastef maire bu Ziguinchor ndax talaata ji nga xam ne moom la ñu dëgmal dina ñëw ci àtte bi nga xam ne moo dox digganteem ak Adji Sarr ci kanamu chambre criminelle la loolee ab laaj la yéen kaay gi di réew mi ko di jeex xëy ñu en tout cas li am ba desal njiitul Pastef Ousmane Sonko na ay conditions yoo xam ne nee na bu ko gars yi respecté dana daal ñëw wuy ji nag ci bi dox digganteem ak Adji talaata ji nga xam ne moom la ñu dëgmal la journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy avocat Ousmane Sonko ñoom nag li ñu ko conseillé maanaam mu ñëw wuy ji tey ci journal bi nee na Ousmane Sonko li nga xam ne sàkk na ko maanaam ñu bàyyi ko librement muy dem ak dikka li bañ maanaam ñu daal di koy tënk Ousmane Sonko tënk bi nga xam ne moom la ñu koy faral di tënk ak di ko bloqué ak seen ñoom loole la bëgg ñu daal di teg ci suufa bëgg na tamit moom jiitul Pastef maanaam atte boo xam ne bu tëddee njaaxaanaay lay doona atte boo xam ne bu leer la ñu dem tànn ay magistrat yoo xam ne maanaam duñu ñu ana ñi génn ca diwaanu Ziguinchor mbooloo mu bari daal koy topp yéen kay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu gisoon ngeen ab délégation bu Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre jiite maanaam ñu dem fekk Macky Sall toppale ba journal bi nee na li ko waral nag mooy état bu Sénégal ñoom nag dañoo jëloon ay dogal maanaam bëgg jàpp Ousmane Sonko maanaam ak fu mu mën di nekk maanaam ñu jàpp ko ko loolee état bu Sénégal bëggoon a def Touba xam na nag loolee bu ko bi defee mën ne moom ngeen di gis ñuy li nga xam ne xutba bu korité la ñu andiloon Macky Sall loole ab prétexte la waaye wax ji dëgg xalif général des Mourides moo wax ak Macky Sall ngir nag mu daal di apaiser mi ngir nag jafe-jafe bañ a am ci réew mi journal bi nee na mortal combat bi naroon a am ci réew mi loole la Touba fexe ba ñu génn ca yéenekaay gi di alerte ñu xëy fekk fa Matar Sène mi nga xam ne mooy trésorier national bu Pastef daat nay wax ci délégation bi nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké Bassirou woon na leen ci palais de moom Matar Sène daat wax ne li ko waral bokk na ci kilifa diine xam nañ ne Sénégal jamono ji maanaam ci guddi gu bët séddégul ci la nekk te bu ñu xefee Sénégal mën naa dugg ci kaw moom Matar Sène ci biir journal bi nee na doxalin wii nga xam ne xalif général de mu ni doxale na ko loolee alert la bu jëm ci Macky Sall wala avertissement te nag li nga xam ne moo am ci mbir mi mooy wax nañu Macky Sall na ko julli dëgg maanaam du wax ba pare di ci génn te dafa war a constant ba pare war a cohérent ci ay waxam yéen kaay gi di critique nee na Touba yedd nañu Macky Sall journal bi di Vox Populi nee na Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ab message bu ñu codé moom la yónnee Macky message boobee nag Macky Sall moo ko war a décortiquer yéene kaay gi di réew mi quotidien sa diwaanu Sigi Cora na njàng mi ak njàngale mi dañu ko daal di lu toll ci benn semaine vacances forcées noonu la ko journal bi bindee yéene kaay gi di le quotidien yor yora na ñi nga xam ne ñuy waa coalition Yewwi Askan Wi jamono ji nag ñoom engagé wu nañu nee nañu danañu amal am mars ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai wi nga xam ne moom la ñu dëgmale te nag am na loon ne loo xam ne munuñu ko nangu tey munuñu ko nangu lëkk duñu seetaan ñuy faagaagal na kuréel gii di mooy manifestation yi ñi ci ñàkk seen bakkan ñu daal ci ubbi ab enquête boo xam ne bu leer lay doona waa F24 ñoom nag ànduñu benn yoon ci faagaagal gi nga xam ne gars yi bëgg nañu ko faagaagal Ousmane Sonko ba ñoom ñoo ngi sàkko Antoine Diome ministre de l'intérieur mu daal tekk ndombal tànkam waaye tamit ñoo ngi sàkko ci ministre bi ñu dénk wàllum yoon ci réew mi di Ismaïla Madior Fall mu tekki ndombal tànkam loolee waa F24 loolee mooy seen bëgg-bëgg na Juan ko ndax nag nee na jamono ji maanaam lu toll si yoo xam ne jot na ko maanaam ay preuve yoo xam ne dañuy wane ne ñi nga xam ne ñooy takk der ñoo ngi dal ci kaw askan wi ngir mu jël mbir mi mën koo yóbbu CPI yéen kaay gi xëy di ñu xibaar naan ñu jàpp gi nga xam ne ñoo ngi koy jàpp farandoy Ousmane Sonko yi ba léegi mbir mi ko la ndax ki ñuy wax Bada Ndiaye te mu bokk ci Pastef Touba démbu teg nañu ko loxo transféré nañ ko Dakar waa dik ñoo ko teg loxo Faali Sané moom tim ca diwaanu Kër Masaara teg nañu ko loxo ndax dañoo njort ne moo jël ab cocktail molotov dóor ko ci dépôt bus Dakar dem dikk ca Kër Masaara journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy takk der yi ba ñu koy jàpp ci aw xew la ñu ko fekk maanaam doomam moo doon ngénte invité ya bëri na ci ñoo xam ne teg nañu leen loxo yéen kaay gi di wal fajri nee na bërki démboo njaay manifestation yi nga xam ne moo amoon ci mbir mi am na ci kenn koo xam ne moo ci faatu woon ca kër Mbay Fall tudd Pape Amadou Keita journal bi nee na autopsie bi nag li nga xam ne wane na ko weddi na li nga xam ne moom la Antoine Diome wax maanaam autopsie bi li mu wane ak li Antoine Diome wax ne moo ko rey comme yàlla ak yàlla yéen kaay gi di vox populi na wax ji nañu ko wax mu leer Pape Amadou Keita ci kër Massara autopsie bi dafa wane ne bal la ko dóor mu daal di ñàkk bakkan kanama certificat genre de mort bi weddi na bu baax a baax ministre de l'intérieur Antoine Diome réew mi quotidien ñu koy fekk fa Aminata Touré moom muy wax ci lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi ndax ñëpp xam nañu ne Aminata Touré jamono ji kombaam bi nga xam ne moom la gën a jàpp ñaari loxo mooy fexe ba Macky Sall du sampandëndama moom Mimi Touré ci biir journal bi nee na bëri na ci biir Benno Bokk Yaakaar ñoo xam ne ànduñu ci troisième candidature Macky Sall te nag Macky Sall boobu soo moytuwulee dana ci wéet moom Mimi ñu fekk ko ci yéen gi de Le Quotidien nee na bëri na ay ministre Macky Sall yoo xam ne yàggatul dara ko wan ginnaaw yéene kaay gi de la Tribune nee na élection présidentielle 2024 Barack Obama wax na ci Barack Obama mi fi nekkoon ay jamono njiitu réew Amérique maanaam jamono ji ma ngi wax ak Macky Sall ngir nag mu bàyyi lépp loo xam ne jëm na ci wàllum ñetteelu candidature yéene kaay gi nee na administration bu Joe Biden ñoom na jamono ji ñoo ngi xel ñaara ci ñetteelu troisième candidature ci Sénégal yan musiba la mën a am ci réew mi li am ba tey ci biir journal bi de la Tribune na ñi nga xam ne ñu yoo Washington ñoom tim ñoo ngi am ay crainte ci tension politique bi nga xam ne moo am ci Sénégal yéene kaay gi de Direct News ñu xëy fekk fa Birame Sow responsable juridique Petrosen APR Jolof ci journal bi daat nay wax ne sensé Macky Sall maanaam sensé ab président loolee risque la ci réew mi nee na Macky Sall bu ñu ko falaatee ci réew mi dina gën a liggéey Sénégal moom Birame Sow daat nay wax ne Petrosen ci ñetti at yi def na chiffre d'affaires boo xam ne toll na ci cinq cent milliards loo xam ne musuta am Sénégal daat nay wax ci lu jëm ci wàllum retombée pétrole ak jamono ji sóoraale nañ si bu baax a baax génération actuelle bi ak génération future ci retombée yi yéen kaay nee na wax na tamit ci lu jëm ci wàllum politique nee na ñi nga xam ne ñoo am ay ndombay tànk nañu ko santé militants yi nañu ko santé militants yi nga xam ne saa su nekk ñooy am engagement boo xam ne bu mat sëkk la ak détermination bu mat sëkk nee na ñi nga xam ne ñooy responsable yi dañoo war a wàcc seen bopp bu baax a baax xam ne lépp militant yi la comme ni ko Macky Sall waxe woon sa diwaanu Sédhiou daan wax ne 2012 ba mooy gagné ci diwaanu Jolof yéene kaay gi de la Tribune xëy duñu xibaar naan ñu plateforme bi di koy jiite ñeenteelu yoon boo xam ne ñoo ngi koy tabb raaya meilleure plateforme objectif am mooy gunge gouvernement bu Sénégal ci politique sociale bi nga xam ne moom lay def waaye wane réalisation yi njiitu réew mi di président Macky Sall def ci réew mi soutenir jeune entrepreneurs yi ci seen i projet taxawal ab mutuelle agricole boo xam ne ngir baykat yi moo tax waaye jàppale association auto école yi ak salon de coiffure yi ak xale yu jigéen yi Mamadou Ndiaye mi nga xam ne mooy vice président bu plateforme xippil xool daan wax ne ñoom jamono ji a continuer maanaam di accompagner njiitu réew mi journal bi de la point xëy ci semaine numérique du Sénégal daan nay wax ne ginnaaw ab connect ci quatorze régions yi nga xam ne ministre bi ñu dénk wàllum communication moo ko jiitu woon fan yi ñu génn di maître Moussa Bokar Thiam semaine du numérique Sénégal activités yi lancé nañu ko njiitu réew di président Macky moo ko lancé sa ma daan na fay jaajëfal bu baax a baax ministre maître Moussa Bokar Thiam ci taxawaayam yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñi nga xam ne ñooy waa UNACOIS ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax njëg yi nga xam a yokk ci réew mi ñoo war a toog waxtaanan ndax ñoom nee nañu saa su ay manifestation amee dañ si am ay jafe-jafe yéen i kaay gii de libération xëy dañuy xibaar naan ñu musiba am na ci centre de santé bu ngara foofee benn élève bu tudd Maam Jaara Juuf moo fa ñàkk bakkanam ndax coupure courant yoo xam ne moo amoon ca centre de santé bu Vélingara ndax Maam Jaara Juuf moomee dafa nekkoon sous oxygène maanaam dañu ko takkaloon appareil boo xam ne salay noyyee yéen i kaay gi nee na coupure courant yi loolee moo tax mu génn àdduna ñàkk bakkanam yéen i kaay gi di sunu làmb xëy wax ci combat bi war a dox diggante Forza ak na